إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأبر بالله وسلم عليه وعلى آله وصحبه بلا تنا بوكي جلدي بوكي طالبي noo len di nuyu bu di leen ziar di jiitu ci nuyo bi sëñ Muhammadul Muntaha di ñaan sa borom yagal ko fi lool te mu ànd ak wér di jël nuyoo waa Kepango salatu ala nabi boole seen ci njiital sëriñ Bassirou Touré di ko jëbal sëriñ Maodo Jang Xaadimu Xadim mi nga xamante ne tey moom lañ seet fii ci Thiès ngir amal moom waxtaan jotaay bi nag bu ngeen ko gisee. moom moo nekk jotaay bi nga xamante ni moom la ñuy waajalee bésub salaatu ala nabi bi ñuy waajal le 30 décembre 2023 fee ca Touba Sam Boqatul Moubarak ci kër sëñ Basiru Touré tey nag ñu ñëwoon fii ci Thiès bëgg seq ak waxtaan sëñ Maodo Dieng Xaadimul Xaadim ngir mu waxtaanoon ñu ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa kon dañ koy jox sëñ Maodo mu nuyoo.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 يا حاضفا كل جوان وكبدي بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانجي يكتي نيو بوتد ديكو جامي تي كيلفا يوني مي شيخ محمد المنتقى دي نان سون بروم سامكو سون بروم اركو سون بروم گنا كو دولي توفيق تي لب di nuyu mboolem waa kekpangok salatu ala nabi ci njiital sëriñ basiru ture mi nga xam ne mooy jëwriñ ju mag ci liggéey bi di sunu xarit waaye di sunu wëllëre di sutub sëñ suba di sunub sëriñ di jël nuyoo bu tedd tam di ko teg ci loxol sëñ Birima Gueye di ko nuyu mbooloom mi yépp di leen ndokkeel ci mbir mu am solo mi nga xam ne dara dara melul ni moom di ñaan suñu borom mboolem luñ ci def yàlla nay barke yàlla nay tawféex yàlla nekk ci misaanu xasanaat yi ëllëg yàlla ko suñu borom ful moom mi daq julli ñëpp ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon sëñ Birima nuyoo baa ngi noonu. jërëjëf sëñ Maodo Dieng xaadimul xadim xanaa bala ñoo tàmbali waxtaan rek dañuy wax ne ne am na mbokk yu ñu àndal waa Képangu salaatu ala nabi di ñu teewee jotaay bi ñu ànd ak sëñ Mouhamadou caare ak euh, sëñ Mouhamed Mbacke Gueye ak ñi nga xamante ni dañ leen fekk fii ci Thiès. wax leen ko ne leen te ñu bokkee te ñu bokk ci groupe ci keppango salaatu ala nabi ñu wax leen ne leen am nañ a waxtaan kët boo xamante ne ñu ngi koy waajal ci sëñ Mouhamed sëñ Maodo Dieng ñu ànd koog ñun ñoom nag bu ñu fi teewee teewal nañ waa Kees ñëpp teewal nañ waa keppango salaatu ala nabi gépp ñu leen di sant bu baax di leen gërëm xam naa dañuy tàmbali waxtaan wi rek di jox sëñ Maodo Dieng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 yenentu boobu mooy ki gën ci mbindeef mm-hmm. yàlla mi bind ñëpp moo ko tànn jiital ko ci mbindeef yëpp mbindeef itam ñoom ñëpp ku nangu ak ku nanguwul xam nañ xam gi daje na ci ni mooy ki gën ci mbindeef yi مرة بن الثبت باتفاق أهل الحق كون أبي الخاسم خير القلق بن بين في داجي تي لولي نيب موي كيتي بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس موم nit ñëpp te li yàlla bind nit moo ci gën bi nit ñi daje itam mu daal nekk ka yàlla tànn mu jiite leen ba noppi gën leen ci lu ak lënt mu nekk koo xam ni tam xeet yi ak mbooleem góor ñi ak yenent yi ak fi mu wàcc lépp dafa nekk seenu tiitar baaha bihil ajdaadu wal aabaau bihi talal arbaau wal ajmaau xeet yi sax sëriñ bi dafa wax ni ñi ci kawe ña ca di arab ak ña ca di ajam na ci moom lañu kawe suñ boroom itam lim bindaat gannaaw bi yépp ci ak leeram la ko binde bihi buniyal arduuna wassamaa'u wa xuliqa arrijaalu wannisaa'u sëñ Tuubaa nee na ci yenent bi ci lañu tabaxe suuf ak asamaan sallallahu alayhi wa sallam góor ak jigéen tam ci mboolem xeet yépp ak lu mën a doon ci yenent bi sallallahu alayhi wa ci lañ ko binde ndax sëriñ bi amna salatu ala nabi gumu indi ci téréem bu mag bobu di kanzul muhtadin téré bu bari ay salatu ala nabi nga xamné lépp ay salatu ala nabi la wax ni allahuma salli wa sallim ala sayidina muhammadin allazi xalaqta nuurahu awwala kulli cheyin nga dañu ko yow yalla yalla nga julli te selmal ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne da danga bind ak leram la njëkk ngay bind dara dara danni ko nak ci leer goga bang ko fa sajada laka fa baqiya fi sujudihi 700 amin. aamin leer ga bañ ko bindee rek ci la xam jaamu yalla mom da da di sujud juróom-ñaari téeméeri at siggiwul benn yoon ca sujjootam ba ba mu jógee nag cala yàlla bind xalax summa xalaxta minhu nuural arshi suñ borom daal di cay bind leerug aras ci leeram googa wal kursi yi ak leeru kursi yi daal teg leeru lawhul mahfuz dadi di teg leeru xalima sun borom ga daal di teg leerug asamaan ak leerug jant bi leerug weer yi ba ci leerug malaaka yi ci la ko sun borom binde kon moom lay wax ci almasrabu shafini lawlaahu lam yaxluqil mawlal xaliqaati bu duwoon ak moom sun borom du bind mbindee fi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy cosaanal mbindeef yépp suñ borom nag may ko may yoo xam ne du dog li ko waral Sëñ Tuubaa nee na ki ko may ak nguuram du dog hibaatuhu waafiratun la tatanaha ay mayam lu bari la du dog ñu ni ko lu tax mu ni li anna mulka rabbihi la yantahi ki ko may moo dul jeexal dara ndax am na may yoo xam ne nag koko ko mayee sa wax deug boo moytul di nga jaaxal waaye dafa xon ni ma indakum yanfadu wa maa indallahi baq li nek ci yeen bindéef yi day jeex waye li ne fi man mom luy dess la muni mayam yi sax ci la may yenenti yep yëpp mursalin yi ak awliya yi yëpp seeni may lu mu reey reey rëy bu ko weddi bu ko sikki saka ndax ci may ki ñu may may gu réy gi ci la génne hibaatuhu minha hibaatul lanbiya wal mursalina wa hibaatul lawliya kon bul weddi kenn kenn ci xeetam bi kenn ci nitam bi lum la wax ni ak may la yow amal tawféexi nangu ko rek ngir yàlla ndax ki nu jox du jeexal ki ko jox itam du jeexal yàlla defal ko melo yoo xam tam melo yoo xam ne la kenn amu ko ahmad bni abdillahi alayhi xayru salawaatillahi sifatu mawludin wana al aabaau am mislihi wanati nisaau nee na melo yenant bi melo la yoo xam ne yàlla na yàlla julli ci moom te sëlmal nee juddu nga nee na mënu am dayo ba yegg ci meloom ya waaye nee na jigéen mësta am mbaa jur ku mel ni kookee ci ay melo ñu ni ko ngëneelam ya nag mu ni ngëneelam ya dañ ko booleel ngëneeli ñi fi gën yépp ci ay ngëneelam motax mu daal raw kep ko xamni borom gëneel la dummat fadailu zawil fadaili li fadlihi fa faaxa kulla fadili loolu tax mu di sang di boroomi ngëneel ba nopi gën ñep ndax ki dajale ngëneel yep ba nopi am sa yëfi bopp loola keman la ay jikom nak muni dafa boole yaru ami teggin ak jaamu yàlla ci biir ak ci biti looloo waral muy sanguk sangi yi damma taadduba ila al ibada qalban wa qalban fa saada saada lim boole yaru tegginu boole ko jaamu yàlla biir ak biti nee na looloo waral fasaada saada mu daal di nekk sangu sang yi li waral nag mu nekk njiitu njiit nee na dafa boole ci càng gi da cee boole laabiire ci digle lu baax ak tere lu bon daman nasihata ila siyaada bil amri wan nahyi fa qaada al qaada xeet wi ko yàlla génne sax mooy xeet wi gën Sëñ Tuubaa wax na ci fatxul fataax ni li tax sirru bi tax see xeet wi gën mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ci nek xam nga waxon na ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas tamuruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar lola da bok ci sart yi xel yi tax xet wi gën moy digle lu bax tere lu bon waye sirru ba deug deug deug moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam minu am da ka bolé layal ko ni ku ànd ak ku jiitu faw noo mën a def da ngay jiitu boo nekkul première tam faw nag da nekk deuxième daal di wax ni xajub asxaabul kahfi ba ku nekk xam na ni ab xaj la waaye xaj bu àgg nag ci alquran di la tudd loolu ànd ñu baax nee na moo ko may kon ñun ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jiital ci kaw xeet yépp lii yépp nag bokk na ci li waral sunu boroom daadi jëmale xitaab ci xeet wi sunu boroom bi muy wax ak xeet wi du waxi kese waaye waqante la wax nag ak wàqante wuute na li ñuy wax xitaab ndax wax joo xam ne nit da ko wax rek bokkut ak nag benn message boo xam ne dañ ko préparer yàlla dañoo woo ci loo xam ni danañu maa leen ci jiitu foof inna allaha wa malaikatahu man yàlla manak samay malaika yusalluuna ala nabi dañuy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag yaa ayuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm te dëggal dañ cee dimbali bu baax mooy summa ilayna wajjahal xitaaba takarruman wa anfusan ataaba ñun amuñu maqaamam yàlla di wax ak ñun waaye xitaab takrimi la dañoo dimbali dañoo teral loolu mooy secret bi nekk ci wala xad karram bani adam li tax yàlla teral doomu adam batay tey secret bi ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam lay dellu suñ borom buur la boo xam amul amul di wax ak ñun du du ci wàllu personnalité du ci wàllu maanaam dayo bu nit war a am wala kenn wala wàccuwaay ba suñ borom di war a wax ak yow yàlla bu gessoo ñëw di wax ak ñun loolu digal gum ñuy digal julli ci yenant bi moo tax yu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi julli leen ci moom wa sallimu te ngeen sëlman tasliman nag fenlu mudaara la ko def te fenlu mudaara dañoo wax ni yufiidu ad daymuuma wal istimraar mooy day waral ni li ñuy digle dañoo bëgg mu sax ba faw faw faw dañoo bëgg mu continuer mooy moo tax mu ne yusalluuna dañuy julli ci yenant bi bu ko defoon fenlu maadi dana am dayo waaye da ko def fenlu mudaara kon nag mu daal di cay teg nag gën koo dëgëral nag daal di wax tasliman mafhumul mutlaq ja kon yàlla lii muy digle nii ñor na ko lool lool sax mu nekk loo xam ni doy na rek ñu ni ndigalu suñ borom la képp ku ko jëfe jëfe nga ndigalal yàlla ndax moo ko wax inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman waaye yemu ca képp koo xam ni jëfe nga ndigal loolu muy di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla day yëkkati say daraja ba noppi di far say bakkaar ak say ñaawteef moo tax mu ni képp koo xam ne julli nga ci man benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon man salla alayya salaatan waxidatan salla alayhi sallallahu alayhi ashra salawaatin ku julli ci man benn yoon yàlla nee na fukki yoon laa julli ci wala ku julli ci yonent bi benn yoon fukki yoon la yàlla di julli ci moom loolu nag dafa am caslaay ci alquran loolu mooy man jaa bil xasanati falahu ashru amsaaliha képp ku jox yàlla benn yàlla moom euh, ni ko suñ benn sëriñ di waxe day bañ ku ko gën a baax bëggul ko gën a baax moo tax boo ko joxee benn mu jox la fukk waaye yamu ca de moom la Sëriñ Tuubaa wax ci nuuru daarayni yaa may yaquulu li musallim marra alayhi ashran qad tuniiru birra nit ki nag bu góorgóorloo ba def fukk suñ borom day jàll téeméer day def téeméer yaa man yuwassilu lidi ashri mia bi jaahihi yaa man xama an sayia nit ki bu góorgóorloo nag ba def téeméer suñ borom day daal di def junni junni julli ci moom nicma shafiun man alayhi miata sallaxta wa alfan tafuuqu fiata nee na doo yam ci junni waaye da ngay raw mbooloo tafuuqu fiata wa huwa alladi liman alayhi alfa sollal muna wa fil yul fa nee na ku def junni suñ borom danaan waaw xaaral kii damay xool lim gën a bëgg ma jox ko ko ba noppi daal di jël ko tàbbal àjjana léegi sallal muna wa fil yul fa mbokk yi loolu yomb na lool ngoon gu ne nga dugg àjjana junni salaatu ala nabi ngoon gu ne wala suba gu nekk wala bëccëg gu ne mën ngaa dugg àjjana loolu ci daraje yenent bi sallallahu alayhi wa ci lañ ko mën a ame ba noppi day dindi ay njàqare moom julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ku nekk mën na koo seetlu ci nit ñi nga xam dañuy faral di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa kaabu dafa ñëw ci yenent bi sallallahu alayhi wa ni ko man day damay faral di julli ci yow kon nan laay def yenent bi ni ko lu la neex julli ko ci man mu ni ko kon julli ji bu ma ko xaajee li may julli yëpp moo ko xaajee ñeenti xaaj damay jël benn xaaj bi ma jox la ko mu ni ko waaw bu la neexee bu neexee itam nga def lu ko ëpp mu ni ko a ah, kon teemaa def xaaj bi ma jox la ko mu ni ko waaw bu la neexee itam nga dolli ko muniko kon buñ ko defé ñent xaj ñett yi dina la ko jox muniko ko waaw bu la nexé tam nga doli ko muniko kon sama julli yépp yow la koy faral di fétalé muniko ko tam kon dey sa ñakkar yépp dana deñ suñ borom dana la jéggal sa bakkar yépp ki julli ci yant bi bu génn aduna kenn duko hisab lu mu def ci aduna suñ borom duko duko duko duko duko ko ba nopi tam julli ci yonent bi dafa am beneen tawféex gu ci nekk mooy ki koy def àq ji dox digganteem ak yonent bi da koy joxe ndax jullit ñi am na àq joo xam ne dafa wékku ci ñoom muy àq yonent bi te loolu julli ci moom daa bokk ci li nga xam ni mooy tax jullit bi joxe ko bokk na ci li nga xam ne day waral nit ki am ràmmum suñ borom am ràmmum yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ràmm nag foo ko dégg rek mooy koo xam daa mat a dimbali koo xam ne tey ay jëfam yépp am na jafe-jafe daanaka boo xoolee mbiram doy na waar ba nga xam ne jéggi doy waar gi jéggi na dayo loola julli ci yenent bi day tax kookee ñu ràmm ko ورغم من صلى عليه عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى فاز بشفاعته xoolal lii bariwul ñaar fukki julli rek la nee na fukk boo ak fukk bu ngoonee boo demee ci tabaraan yi fekk ko fa nee na bu ko defee bu ëllëgee yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy ràmm kon bokk na ci itam ki koy julli ci moom day am tooguwaay gu jege jege jege ak wàccuwaay bu jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg loola dafa waxoon ni képp ku julli ci man bi nga jullee ba noppi nga wax ni allahuma anzilhu al maqada al muqarrab indaka yowma al qiyaamati nee na ku ko wax nee na warlul naa la sama garamu warlul naa la tam da nga nekk tam ki ma gën a jege bu ëllëgee loolu mooy yow yàlla yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga ko wàcce wàccuwaay yu gën a jege ci yow yowmal xiyaam loolu mooy maqaaman mahmudan rek mooy maqaama boobu nga xam ne moom la ko suñ borom waajalal bokk na ci itam day tax yàlla di la tàgg ak la tudd ak di la wane tam moom julli ci yent bi ndax yàlla moo ne woon fazkuruni azkurukum tudd leen ma bu ko defee ma tudd leen te nee na su ngeen may tudd ci mbooloo nee na man dama leen tudd ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo mi ngeen may tudd kon saa yooyu julli ci yenant bi moom yàlla moom itam mi ngi julli ci yow mi ngi lay tàgg mi ngi lay yëkkëti waye amna leneen lu ci gëna yéme fim fi toll fu ay mëna a ci yent bi wax ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala gënen julli yàlla dina jël ruuhu sayyidina muhammad yóbbu ko ci barabam delu ko muy dundu mu daal di lay fay jaar ci sa tur julli ci yow tam daal di lay fay nuyo lola jarna julli ci mom ci jamono bu ci nek bokk na ci itam sabab la ci nangu ñaan nit ki ñaan di ko tijjee julli ci yenent bi ak di ko tëje loola day tax nit ki ñaanam nangu ndax yàlla lépp loo xam dañ koo enveloppé ci julli ci yenent bi yàlla du ko delloo ñaan goo xamante ni diggante ñaari diggante yépp liñ fa def mooy julli ci yenent bi loolu yàlla du ko dellu sallallahu ala muhammadin wa sallim loolu yonent bi moo ko waxoon dafa am benn waay bu mu déggoon muy ñaan te julliwul ci moom mu ni kooku day xëy na dafa yàkkamti bu ngeen di ñaanati dee leen tàmbalee ci kañ yàlla sant ko ba noppi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa su ngeen ko defee ñu nangul yéen waye julli ci yenente bi dafa bok ci mandar gay wek yenente bi jox ko way ndax yalla mo digle won ni ngir ngeen gëm yalla dafa bok ci charte yi ngeen jox yenente bi magal ko jox ko way li tu'minu billahi wa rasulihi wa tuazziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila subak ngon ngeen di julli ci mom di ko diko di ko di waxtana ak mbaxam bokk na ci itam moom daa bokk ci mbir yi nga xam ne day tax ab jataay du bokk ci majaalisu shaqaawa jataay boo xam ni nit ñi toog nañ ci moo xam dañuy waxtaan moo xam dañuy liggéey moo xam lépp lu ñuy def te def ko ba yeggal te wuñ ci yenent bi sallallahu alayhi wa jataay ba eh, yonent bi sallallahu nee na Sëñ sax wax na ko ci ak julli ci kanzul muhtadin ni jataay ba xeetu medd lay lay lay xeeñ te moom lay yemal ci yàlla suñ borom daal di wax ni ñooña nag suñ borom am na ci ñoom li ñu tuddee tira tira ci arab lu mat a seetaat la mooy koo xam ni dañ ko rayal am mbokkam mu ko jege loolu la yàlla yemaleeg jataay bu nit ñi toog te julliwuñ ci bi sallallahu alayhi wasallam daal di tey ko soobee bu ëllëgee mu leen bu ko soobee mu jéggal leen kon euh, nañuy baril ci jataay yi ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallama bokk na ci itam tawfiix gi ci nekk mooy day waral nit ki am ak dëgër ci ëllëg buy jéggi siraat ndax sirat dafa nek lo xamni waxtu geela la ko nit ñi di jéggi mu lëndëm lendemay go xamni na dawe ba nopi ñu gal ko ci kaw sawara ba nopi mu sewé ni ak mes mes yi jigen ñi di lettu ben bi non la sirat sawe ci niñ ko misaale ba nopi ta kenn ku ci nekk dana ko jéggi ba nopi mu am ay pont pont bu nek nga war faa taxaw ñu war la laaj ci dara waaye yant bi nee na gis naa ay góor ñoo xam ne ci sama xeet bi bu ñu jéggi siraat seenu jéggi day doy waar dox ba day gàllankooru lool ba am na ci ñoo xam ne dañuy àgg ci raam duñ mën a defar dara am na ñoo xam ne dañuy dem ba tàggatémbe waaye nee na ci gis amna ci ño xamni dañuy dem ba tagga témbe far salatu an nabi gën doon julli ci man daal di ñëw daal di leen di dëgeural seen tànk musal leen dimbali leen loolu ci hadith bu wér la raaytu rajulan min ummati yazhafu ala as siraati yahbu ahyanan wa yataallaqu ahyanan fa jaathu salaatuhu alayya fa aqaamathu ala qadamayhi wa anqazathu kon julli ci yonent bi lu ama amam solo la aji julli ji da koy génne ci mbooleem lëndëm yi dugal ko ci leer buñ ne lëndëm ak leer mooy lislaam ak kéefër lislaam diiney leer la nit mën naa dugg ci lislaam ba noppi ba yàgg ci te leeruk lislaam du yegg ci ci moom loolu yàlla moo koy tawféexal allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min adulumaati ila nuur ndax yàlla moom ci boppam leer la allahu nuuru samawaati wal ardi lislaam di leer yonent bi sallallahu alayhi sallam mii ñuy waxtaane nii sax leer la qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin kon leer googu da koy indi ci nit bokk na ci itam julli ci yonent bi day waral nit ki maanaam ak tuddam day daal di des nit ki day mujj siiw ci lu baax day mujj tam gox yépp dañ koy daal di xam ndax li yàlla julli di julli ci moom yàlla day julli ci moom moom itam li muy julli ci yonent bi loolu boo demee ci ibnu qayyim al jawzi wax na ko ci njariñal salaatu ala nga xam ni nit ki kenn ku nekk da koy nekk fu sori di ko dégg ci lu baax mu siiw lool ci lu baax fekk na salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa moo ko defal bokk na ci itam day waral nit ki bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa ba noppi sax ci te loolu lu yomba misaal la ki nga bëgg su fekkee da ngaa saxal di ko tudd ci saw làmmañ di baril di julli ci moom ak bi ko waxtaane boobaa bëgg gi ko bëgg day gën a yokk waaye am na yeneen njariñ itam dafay tarxiye nit ki ngir mu am ak kawe waaye dafay dëgëral am xel ba noppi def ci moom pas-pas bu wër moom la Sëriñ Tuubaa wax ni salaatan turaqi li naylil ula يقوي العقول بعقل صحيح bokk na ci itam mbooleem nit ki di bëgg di ko mébét da koy daal di am la ca gën nag la koy jox salaatan tajuudu bi xayri munan yazulu biha aybu nafsin wa ruux nee na ayib ju nit ki mën a amee tam sax ci bakkanam rek ak ruwam nee na salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam da koy dindi nee na day wane yenent bi iyaanan salaatan turini huna wajhahu ayaanan li yashfiya qalbil jarih waaye li ci yéeme mooy julli ci yenent bi day wane jëm yenent bi kanamam nga wal wajhu maaxil xumami kanamam goog nga xam day dindi njàqare julli ci yenent bi da koy da koy koy da wane waaye huna nag fii waxul fële xam nga boo xoolee xadis yi ñenn ñi dañ koy tawil naan loolu gisug yomal xiyaam gi la waaye loolu sëñ bi moom da cee da cee insister ni huna waaye nag bu ñëwee ngir mu faj sama xol bi nga xamante ni xol bu ñu gaañ la mu ne iyaanan waxul sax yaqazata waxul uh, maanaam manaaman waaye uh, yaqazatan la wax iyaanan nga jàkkaarloog moom nii di ko gis waaye dafay tarbiya nit ki nit ki nga xam ni seytaane da ko woowoon ba jàpp ci ab loxoom nar koo alkuloo salaatan turabbil musalli allazi daahu lainu li cheyin mutiix di ko tarbiya loolu kenn ku nekk ci ñun mat na ci seere kenn ku nekk laataa ngay sóobu ci salaatu ala nabi am na foo nekkoon waaye bi nga ko jàppee am na feneen foo nekk mooy li sëñ bi di wax is annahu min yadi cheytaani axrajani waaw suñ borom ci loxol cheytaane la ma la ma la ma la ma génne mu mel ni sëriñ bi yaatal na ci lu am solo lu bari wax ni njariñ li maanaam kenn mënu koo misaal Sëriñ Tuubaa ni lépp loo jàpp ginnaaw farata yi neena na salaatu ala nabi moo ci gën a kawe amma salaatuna ala nabii muhammadin xayri bani lu ayi fa hiya ajallu ma tamassakta bihi baada adaa il faraidi faltantabihi lépp loo jàpp rek ginnaaw farata nee na salaatu ala nabi moo ko gën a farataw buñ ne farata nag laa ilaha illallah da ci tàbbi ndax laa ilaha illallah nit mënta doonub julit te te te te tàbbi woo ci laa ilaha illallah ba noppi mooy bunt bi kon moom ginnaaw yooyu yëpp moom salaatu ala nabi moom moo ci gën a kawe mu ni te lii ma wax sunu sëriñ ba di assanusi asharif nee na wax na ko daal di cay teg ni moom rek lañu nangu ci wird woo xam ne nit ki mën na koo jàpp te bu doon ñàkk ab sëriñ day dagan maanaam mu mën koo am mu mën mu mën mu mën a sëkk ab sëriñ ngir lan li muy xëcc ci nit ki jëme ko ci jege ki nga xam ne mooy soppe ba qad nas cheikhu nas sanuusi asharif radiya anhu dahra ربنا اللطيف بأنها تغني عن المربي لجذبه الفتى لجذبه الفتى لقرب الحق حبي بنابي سنتوانا ندي سترة أي بنت بجيجل ديوارا جيجل بكار وهي أيضا تستر العيوبا ويغفر الله بها الذنوب نانا تي أكفايم دفا ملني غويل manam ko xam dañ ko jàppoon jam nga ñëw goral ko loolu nak liñ ci mëna dégg moy manes na ci goral nit ku nekk sawara nit ki mën na cee goreel ci bopam sawara ci walu goral tam ci ci ci lu bare bari mën naa yaatu mafhum bi mën naa yaatu wa annaha aydan kal itqi fi l ajri kama taqdi al hawaij allazi taqdi hawaij allazi lahantama nee na day agale nit ki ci àjjana ëllëg ba noppi fegal ko sawara wa tuusilul abda ilal jinaani gadan wa tadfau anil niiraani nee na dafay leeral bitib nit ki ci loolu ñëpp ci d'accord nee na gaay yàlla yëpp ñoo ci d'accord ak biirum nit ki fi mu kii julli ci yant bi sallallahu ñaare soo ko gisee rek di nga xam ni kii day julli ci yant bi nee na ni muy leerale biteem noonu lay leerale biiram nee na ëllëg day waral ràmmug yenant bi moom mi ngën gi mindeef wa annaha tuujibu yowma alxaqi shafaata almuxtaari xayri alxalqi salla wa sallama alayhi rabbu wal ali wa saxbi wa man yuxibbu nee na li nga xam ne làq na ko ci ay njariñ fii ak fële nee na raw na dajale gaa yi mën a dajale nee na bindkat yi mënuñu fexe ba dajale li nekk ci salaatu ala nabi ndax waxon na ni amma salatuna ala nabi te bay dee jiitu alayhi azka salawatul hayy fa shiddatu shawqi lahu maa ittibaa sunnatihi samaratuha wal intifa' nana da bok ci limi waral moy siddatu shawq moy nit ki dem ba dudul amati sago ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni léppam comme ni ko Sëñ Tuubaa nga xamni ay njabotam ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la leen tuddee ay xasidaam léppam ci sallallahu alayhi wa sallam la ko jënd la ko def ay dëkkam léppam ci da koy mujj euh, bëgg gi day tar nee na ak topp sunna ak jariñu nee na loolu moom mooy meññeef mi muy jur kon yow bul xeeb dara julli gii li muy gàtt-gàtt mën nga ko julli sallallahu ala muhammad mën naa bari lool yàlla na yàlla julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu gàtte non la bare njariñ ci buñ ko taxawon allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad julli gu gatte la ta bare njariñ allahumma salli ala muhammadin wa sallim julli gogu bari na khaside yo xam Sëñ Tuubaa mom la ko tijjee lu melni tuhfatul mutadarrin lu melni sindidi ak khaside yu bari yo xamni allahumma salli ala muhammadin wa sallim khaside julli gu bari njariñ la salaatul ummi itam mag ñi fonk nañ ko lool allahuma salli ala muhammadin annabiyi l ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim julli la goo xam ne wax nañ ni daa bokk ci lim gën a fonk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatul ibrahimiya moom itam julli gu am njariñ la te am doole moom itam téeméeri lu am doole la salaatul fatih moom tam boo demee ci fawzul mutiyan ah, sëñ bi bi mu tuddee salaatu yëpp dane nag dabuñu gi mooy salaatul faatiha moom moom gen genn salaatu daanaka yombul mu dab ko salaatu naariya moom tam dafa am doole lool baax ci nit ku nekk ci ay xat-xat baax ci aajo tam euh, am na salaatu goo xam ni sëriñ bi indi na ko ci mafaatihul bishri indiwaat ko ci kanzul muhtadin euh, li waral ma bëgg koo dafa am ku ñëw ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu indi ko ñu ni ko kii day dafa def loo xam ne dañ ko war a teg ay daan moo xam dañ ko waroon a faat bakkanam wala dañ ko waroon a teg beneen daan boo xam ne dafa bokk ci daani sharia yi bim dikkee bañ indi ko ñooña daal di dem bàyyi ko fa mu toog toog toog ba mu yàgg yonent bi sallallahu alayhi woo ko ni ko ñëwal nga dem mu muy dem bi mu doxee tuuti yonent bi sallallahu alayhi woo ko ni ko yow de bañ la fi indee ba léegi maa ngi gis sa yi di yëngutu looy wax mu ni ko boobu ba tey maa ngi naan allahumma salli ala muhammadin hatta la tabqa sala اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة بنا julli ga àgge yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ni ko yow kay li tax maanaam ñu jéggal la li tax kenn mënu laa topp dara sëriñ bi wax niki ki bëgg a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa dellu ci téere bi nga xam ne mooy nafu tiib cheikh sidil muxtaar al kunti moko ko bind doomam ji di cheikh mahamadul xalifa sarawaat ko tudde ko rawdul xasib sëriñ bi digle na tam dalaailul xayraat yëpp mi ngi ci masaalikul jinaan dalaailul xayraat yi moom jazuli moko bind muy xisa boo xam ne dañuy bañ waxtu wi waaye kon danañ ci wax dara kunuzul anwaar fi salaati ala nabil muxtaar tam sëriñ bi wax na ni amal fa huwa xayru ma xara abdun yaruumu ay yanaala zafara nee na bi di kunuzul asraar fi salaati ala nabil muxtaar nee na moo gën ci ab jaam bi sàkkoo li nga xamante ni mooy ak làq teg na ci tam asalaatul masishiya euh, salaatul masishiya moom la wax ni wa nubzatul qutbil wali abdusalaam abdusalaam afdalu ma afdalu ma alfata bihi raamal maram asalaatul masishiya lay junj foofu julli gu am solo la si abdusalaam ibnu masis moom ko def yooyu yëpp nag mooy jamono bi muy dajale xam-xam waaye nag yëfam moo gën a lépp kon duru samin ab téere du mel ni ci salaatu ala nabi fawzul mutiya xadaaiqul fadaili fathul ghaffar kanzul muhtadin mafatihul bishri jalibatul maraxib nuuru daarayni nuuru daarayni muxaddamatul xidma bu la neexee nag nga ni mafahdul bishri al kubra ak xidma kubra ak yooyu yëpp téere yi boo ko doon boo ko doon boo ko doon boo ko doon tënk doo ko mën a tënk ca biir nuuru daare ni ma nga wax naan salli salaataka allati la taxturu bi baali zi balaa balaagatin qad yasturu yow suñ borom na nga julli sa julli gi sa julli gi sa julli bopp gi ngay julli ci yent bi julli goo xam ne nag du masa rot ci xelu koo xam ne dafa ràññiku ci wax ak ci nas wax du masa rot ci am xelam xat yasturu ba mu koy xalaata bind ca mafatihul bichri ma nga naan tiil xurufa ka jami salawaat mbooleem luñ masa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam téere bi na na na mel ni moom léegi laa koy wax sama mbokk taalibe bi mu ñu wax suñ xaadim jaxate dama wax ni ma sëñ Alaaji Mbàkke da ko wax ni ko sëriñ bu mag bi dafa am ci fere yi kum ci masa woo bim mu ko woowee kookee daal di yéex a ñëw mu ni ko bi mu ñëwee sëñ bi laaj ko ci lu mu nekkoon mu ni ko dafa am mbokk moo xam ni dafa wàññi ko woon mu koy defal fukki lixlaas ak ñaar sëñ bi ni ko waaw foofu day lixlaas ak fa am dayo ndax benn lixlaas bu ci nekk dana fa wecci fukki ati jaamu yàlla ak ñaar daal ni ko waaye sunu téere bii di Mafatihul Bichri day moom day dana fa wecci fa xakkadun minal ulufi ci ay lixlaas maanaam cent vingt quatre mille lixlaas kon eh, ñoo ngi eh, yemale foofu eh, kàddu gi Euh, di sant yàlla bu baax a baax bam ñu xéewalee defal ñu tawféex yi wax ak ñun digal ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, sant sëriñ Tuubaa xaadim rasul sallallahu bam ñu soññaatee defal ñu lu jàpp ni luñ mën a jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñun ñii ñëpp sëriñ bi moom ñu dimbali boole ñu ci boppam boolewaat ñu ci buum goo xam ni dañuy wéy di julli ci yonent bi ba saa taxaw kon yàlla yàlla julli ci yonent bi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب wasallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wajjalni bijaayi man duaahum tastajib sëñ Maodo Dieng xaadim xadim ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax di wax ne waxtaan wi de kawe na njortu lool ba jàngee nañ ci lu xamul woon dama mel ne ki doora dal ba tey ci salaatu ala nabi yaakaar naa ne man ak sama mbokk yi ma toogal am na yëg boobu ñuy ñaan saa borom guddal sa fan wéral say cër ci barkeb salaatu ala nabi taala alayhi wa sallam am lool di wax ne waxtaan wi li ko taxoon moy mooy waajal bésub salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bés boo xamante ni waa keppaangoog salaatu ala nabi ñoom ñoo koy taxawal fële boqantul mubarak sam ci kër sëñ Bassirou Touré kon ñu ngi ci wo julit ñep rawati na kep ko xamanteni day bëggé yonte bi sallallahu alayhi wasallam di julli ci mom saa su nek waxtu nek ñun dañuy fasiyé diko liggéel ko liggéeyal waa képp bàngoog nabi ci liggéel yonte bi sallallahu alayhi wasallam na nek tay suba gannaaw ëlëk képp ku ñëw fekk ñu ci képp koo xamante ne tamit wéy nga rek bàyyi ñu fi kon ñi ngi sant bu baax ci waxtaan wi xam naa di rotal rek jox mbokk taalibe yi ko xamante ni am am na laaj bu mu bëgg laaj rek ñu mu laaj ko sëñ bi ñu mu tontu ko ñu joxe kàddu yu mujj ñu mën a tëj jotaay bi kon bisimilah mbokk taalibe yi am laaj rek bisimilah. <laughs> Muhammad alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf. sëriñ Maodo jeng ci euh, waxtan bu am solo bi nga xamne andil nga ñuko ko ci jëmmi yonent bi alayhi salatu wassalam moy kan euh, ak tamit li nga ñu andil ci njëriñul julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nek lo xamne képp ku ko déglu te bayiko xel rek yaakar naa ne di nga ci mëna a jëriñ bu baaxa baax kon ñoo ngi sante bu baax te ñaan suñu borom mu yagal sa taxaway bu baaxa baax ci barke bi xam naa am na ci ay laaj yoo xam ne sax rotoon na ci suñu xel waaye ci tawféexi sëriñ bi mel ni tontuwaale nga ko ci biir jotaay bi su ko defee ñaari bayit rek lañ bëggoon a laaj incha allah te loolu itam ñu ngi koy sukkandiku ci li nga wax ci xam nga sëriñ bi bu muy bind Masaalikul Jinaan boo demee am na ay téere yu am solo yoo xam ne digle na ko ngir ñu di ko jàng yoo xam ne téere salawaat la ala nabi waaye comme ni nga ko waxee itam ci mujj bi xëy na bu muy bind Masaalik boobu. comme ni ko sëñ Basir waxee mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett jàpp euh, juróom-ñeent ak mel waaye ginnaaw bi nag bind na ay xasida yoo xam ne ay xasiday salawaat lan yoo xam ne euh, képp koo xam ne bëgg ngaa julli ci yonent bi alayhi salaatu julli ba gën a mat julli ba gën a rafet boo ko jàppee mën nga ko am ndax comme ni mu waxee woon ne wajxal salaati hazihi ladayi xayra salaatin soliyat alayhi ñu bëggoon a laaj ñaari bayit rek yoo xam ne Euh, bëggoon nañ ci ay leeral yu nekk ci bidaayatul xidma bayit bu njëkk bi mooy fi sëñ Tuubaa di waxee ne yaa rabbana salli salaatan taftaxu qalbi biha fatxan umuuri yuslixu maa salaamin naa irin yunawiru qalbi wayaatini bihi tabasuru ñaareelu laaj bi mooy yaa rabbana salli salaatan tadfaxu anniya fi daarayni maa laa yanfaxu مع سلام لي يجر نفعا دنيا واخرى ويرم صنعا ñaari laaj yooyu lañ bëggoon a laaj incha allah bu fekkee mën nañ ko baamu at maanaam maax naa mi sëñ Mouhamed Thiaré laaj boobu mu laaj day laaj bu am solo muy sëriñ bi ci ak njëlbeenam ni mu taxawoon tàmm ci dajale xam-xam loolu nag li ko waral lu waral ñëpp lu lu ñëpp war a xam la mooy ni sëriñ bi dafa gisoon ni xam-xam yu bari ñu ngi àgg ci raaf booba dafa bokkoon ci politique tubaab yi mooy lakk ay bibliothèque ba ci réew yi lislaam yi bibliothèque yi nga xam ne